summa aw dégginam dafa digg doomu dafa ëppalut yéesalut am na ñoo xam ne ci mbirum diine dañ jàpp ne ngir ñu xam sunu boroom subhaanahu wa ci xel lañ war a sukkandiku am ñoo xam ne dañu jàpp ne ci wax yu lañ war a sukkandiku maanaam ci al lu jóge ci yàlla di alquran wala sunna maanaam ay texte am ñu jàpp ne yooyu yëpp sax baax na waaye lii tax a xam yàlla dëgg-dëgg daal mooy nga soobu ngërum tasawuf ba àgg ci sa boroom mu xamal la boppam ñu njëkk ñi mooy ñu daan tuddee al mutakallimuun nga xam ne bu ñu lay jàngal suñu borom ci ay tegtali xel lañ la koy jàngal seen xel la ñuy jiital bu ñu jàng texte it seen xel la ñuy jiital lépp loo xam ne seenum xel mënu koo dégg dañuy wëlpati texte bi ba mu dëppook xel moomee nga xam ne xel rek lañ fa teg ci seen kanam am ñoo xam ne teg lañ teg seen kanam teg yàlla nee na yonent bi nee na te duñu sonn ci jéem a dégg wax yàlla jooju ak jéem koo dégg ci jëfandikoo seen xel sonal seen xel ci dégg ko tawxiidul aarifin tawxiidul mutakallimin mooy ñu waxoon ne yàlla kenn du ko xam lu dul ci ay tegtali xel jiital seen xel tawxiidul aarifin mooy ñu ne dañuy sóobu ci ngirum tasaw ba yàlla xamal leen seen bopp mu jàpp ne moom ñaar yëpp lañ war a boole bu ci nekk boo ci yamee mën naa am dana des waaye yëpp itam fokk nga boole ci jëf fokk nga boole ci jëf maanaam yooyu yëpp maanaam ci texte lañ koy delloo tawxiid bu mu ci mën di doon ñu ngi koy delloowaat ci eh, xel kon moom nangu na ne xel lu ñu war a jëfandikoo la texte nag mooy cosaan waaye nit ki tam xelum boppam ak déggug boppam ci ay texte du doy fokk nag mu sóobu ba àgg ci boroomam boroomam jox ko dëgg-dëggi xam-xam ndax xam dëgg bala def ab xolam day sel ba leeruk sun borom mën caa dugg ndax xam dëgg dëgg leer la te leer ku amul ku du ko def du ko am euh, waxshal ilaha li diinihi mutaxaafizan is laa yanaalul ilma aasin mujrimu shakawtu ila wakiin sua xafzi fa arshadani ila tarki almaasi wa axbarani bi anna al ilma nuurun wa yuhda li aasi kon noonu nga koy toppee mbir mu nekk daf cay digg doomu su fekkee dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne mbirum ruux rek moo am solo ci nit ba tax lépp ci ruux lañ koy jëmale luy tax nit ki ruux ak ruuxam sell ak lu koy kawel ak lu koy tax a taxe ëllëg am ñoo xam ne dañu jàpp ne nit jëmm kese rek la ba tax na luy tax ay jëmmam yéwén euh, jëmmam am kàttan wér ay bëgg-bëggam ci àdduna yépp mën a sotti moom bu ñëwee dafa boole ñaar yépp jàngal la diine joo xam ne ruux gi da ci am wàll jëmm ji itam am ci wàll kon foofu loolu mooy euh, digg doomu su fekkee am na ñoo xam ne dañu jàpp ne diine jëpp sharia la sharia la mooy ay jëfi kese am ñoo xam ne dañu jàpp ne diine xaqiqa la mooy pas-pas bu ne ci xol akuk sellal moom dafa jàpp ne diine ñaar yëpp ngay boole da ngay jàpp boole shariatu ak xaqiqat loolu mooy dëgg-dëggi listiqaama loolu mooy dëgg-dëggi sunna su amee ñu jàpp ne nit dafa war a wakilu ci yàlla bàyyee boppam lépp yàlla bañ a sabablu am ñu jàpp ne nit ki kay dafa war a kër-kër yi di sabablu lu mu amut moo ko xañ boppam moo jaar ci yoon koy may moom dafa ñëw ne déedéet nit ki day gëm yàlla xam ne lépp lu am mooma waaye nag lenn lu nekk yoon wa yàlla wax ne jaaral ci yoon yi wala bunt bu mu wax ne taxawal ci bunt bi ma jox la lii teggin mooy nga jaar ca yoon wa taxaw ca bunt ba kon déggu sëriñ Tuubaa ci diine mooy déggiinu wu matale sëkk ak woo xam ne dafa digg doomu ci mbooleem mbir yi kon mooy déggiinu yi gën a euh, sell gën a baax euh, su ko defee bu fekkee ne xam nañ ne kon sëriñ Tuubaa am na aw déggiin ci lislaam wu ko woo xam ne tax na mu am xalaatu boppam buñ mën a tuddee xalaatu Sëriñ Tuubaa xalaat boobee am na ay cosaan am na ay fondement ay ay keno ay keno ay ponk yoo xam ne moo taawu xalaat boobu ba nga xam ne ponk yooyu képp kum daje ci moom mën nañu wax ne jëmmal na xalaatu Sëriñ Tuubaa ponk yooyu mën nañ jàpp ne juróom la li ñuy wax lépp nag dañ ko delloo ci mbindum Serigne Touba mën naa am waxtu wi tënkuñu ba leen lu nekk fañ nañ ca war a delloo fañ cay dellu du jàpp ni waaye amu ci leen loo xam ne lu ñu fent la waaye lépp dañ ko sukkandiku ci mbindam xalaat sëriñ mën nañu wax euh, ponk yi nga xam ne moo taawu xalaat sëriñ Touba mën nañu wax ne juróom la bi ci njëkk mooy xam-xam xam-xam taalibe murit dafa war a am xam-xam dafa war a xam sëriñ bi nee na ab taalibe li mu war a njëkk a def mooy xam ñu bari boo leen laajoon tey murit lu mu war a njëkk a def dañ naan la jébbalu jébbalu lañ lay wax naan moom la taalibe war a njëkk def waaye sëriñ bi nee na déedéet taalibe li mu war a njëkk a def mooy jàng jàng xam-xamu diine tawxiid fiq tasawuf awalu waajibin alal muridi taxsilu zaadihi min at tawxiidi wa baax taxsilu maa yusaxihu bihi furud al ayni fi ma sarrahu wa baadahu yasluku in raamal wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul ak yeneen wax na yeneen bayit lu mel ni wal yaalaman kullu zakin wa balid anna lisi yuxaalifu alxaq tarir walxaqu badu alabdi bitawxidi walfiqhi an tasawufin majidi muntahijan mazhaba ahli sunna maa aljamaati wa tilka aljunna kon xam moo war a jiitu ci lu ab taalibe war a def xam nag nekk lu am solo sëriñ ba Bachiru Sill jazahullahu xayran wax na wax ju am solo ci xam-xam Cheikh Saalihu Saaka wax na moom itam mottali na ko ku ne xam na xam ni mu tollu ci yoonu murit sëriñ Tuubaa bind na jàngale na sos na ay daara loolu lépp ngir bëgg nit ñi xam xuppe na ci kuy doyadal xam-xam mbaa ku koy woyafal bokk na ci li wax ne euh, képp ko fu kullu man dayaa ilman bi sunan wa bi faraida wa yartajil minan fa huwa zu dalali wal idlali jazaauhu intiqaamu zil jalaali képp koo xam ne sàggane nga xam-xam jànguloo ba xam say farata ak say sunna ba noppi yaakaar ne da ngay am texeeg ëllëg kooku ku réer la te ku ko topp daf koy réeral kooku it ëllëg yàlla moo koy moo koy mbugal moo koy fay ñaawte foofu mu def moo ne ne képp ku lay tere jàng kooka lam tere googu ci réer la ko teg te kooka itam mu ngi woote jëme ci biddaa te kooka mooy xalifa seytaane li mu wax kon ci ngeen lu xam-xam ak di ci soññee loola bari na lool jotaay bi du ak du ñu may ñu yaatal ci waaye kon ñu xam ne xam-xam moo jiitu ci keno yi nga xam ne moo taawu xalaatu Sëriñ Tuubaa kon nit nit taalibe yi mooy dañuy xam mu mel ni li Sëriñ Tuubaa waxoon ne wa min makaa'idil aynil mujrimi saddul muridiina ani taallumi bokk na ci pexe yi seytaane yi def ngir gàllankoor taalibe yi mooy dox seen digganteeg xam-xam loola seytaane dox na ci ab jéego bu rëy rëy ba tax na siw na ci yenn barab yi ñuy wax naan mbirum Serigne Touba nekkul ci téere mbirum Serigne Touba nekkul ci téere nga xam ne soo xasee wax loolu dog nga dog nga diggante yoon wi taalibe bi ak xam-xam téere moom bu ñu waxee xam-xam a tax ñuy wax suñ la ne nag léegi téere moom nekku ci mooy ne jàng ak jàng ak jàngale bokkatut jàng ak jàngale bokkatut kon xel bokkut xam-xam bokkut léegi bu nit ki amul xel amul xam-xam nu muy def dana doy waar kon loolu xam ngeen ne pexem seytaane mu rëy la li waroon a wax mooy mbirum Sëriñ Tuubaa nekkul ci téere rekk nekkul ci téere rekk waaye nag la ci yitteel mooy lim ñu digal ak lim ñu tere loolu moom mu ngi ci téere yi moom lim digle ak lim tere loola mi ngi ci téere yi kon xam-xam moo jiitu bi ci toppaat mooy jaamu yàlla jaamu yàlla mooy ñaareelu keno bi Sëriñ Tuubaa mbiram yoonam wépp mooy bëgg nit ñi jaamu seen boroom xuppe na soññe na bu baax a baax ci jaamu yàlla euh, safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala képp ku yaakaar ne maanaam bëgg mën ngaa tàbbi ajjan te doo jaamu yàlla nee na kooka ku ku ku dese la rajaau jannat bila taati bi sunnati lmaaxi gururun yaati zullu lazi abal ibadata fala yazaalu wal maaxi jaamu yàlla mooy ñaareelu keno ci keno yi xam ñoo taawu xalaatu Sëriñ mooy nit ki dundam gépp daf war a jeexal ci jaamu yàlla ñetteel ba mooy ab yar ak jikko yu rafet ab taalibi dafa war a yaru dafa war a am ay jikko yu rafet loolu tam mënta ñàkk ci murit bi bi ci toppaat mooy muy liggéey ñaq ba mën a sukkandiku ci boppam mën a yor boppam mën a def lim bëgg a def ci diine juróomeel bi mooy muy liggéeyal yàlla loolu mu ñoo ma mooy rek di jihaar ci yoon yàlla mooy nga fab sa lépp jox ko yàlla sa xam-xam sa xel saw ñaq sa alal sa lépp loo am lu mën a jariñ diine nga jox nga joxe ko def na saxaaba ya defoon juróom yi xam-xam jaamu yàlla yaru ak yar ak teggiin ak jikko yu rafet liggéey ak liggéeyal yàlla muy al ilmu wal ibadatu wal adab wal amal wal xidma léeg-léeg nga gis foo xam ne sëriñ bi ñaar lay tudd ñaar yi lay tudd lu mel ni fi wax ne euh, ñi aju ci man ñeent lañu ñi wax ne dañoo aju ma ñeent lañu foofa ñaar léegi la daan tudd al ibadatu wal xidma ñaar yooyu lay tudd ibada ak xidma foofu la daan wax ñaar lay tudd al mutaaliqoon bi bil ibadati wal xidma yadxuloon jannat bi xeyri xisaab al mutaaliqoon bi bil ibadati bila bi bi bil xidmati bila ibadatin yadxuloon jannat bi xisaab ak yooyu ba mu jeex kon foofu ñaar la fi tudd am foo xam ne ñett ngay gis mu tudd yaquuduhu bil ilmi wal ibada kama yurabihi bi tarki alaada wala boog wasaytukum yaa jumlata tullaabi bi talabi al ilmi maa al aadaabi ijtahidoo fi al ilmi wa taaddubi wa saayi wa hiya jaalibaatu raxabi foofu ilmu la wax ak adab ak as-sa'y mooy jëf am foo xam ne xam-xam ak jëf lay wax wal ta'lam di ana ilman wa amal su ko defee baatub liggéey bii ñu xam ñun liggéey mooy nga yëngatu ngir am alal joo tedde baat boobu bariwul lu mu koy tudd ci ay téere di ko tudd bu koy tudd talabul xalaal la koy tudde wala al iktisaab wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi gayri wahami wala wal iktisaabi abadan bil amali bi niyati al bi gayri malali waaye nag bu fekkee li mu koy tudd ci ay mbindam bariwut waaye ni mu ñëwee ci pratique bi fes na fesaay woo xam ne ku ne xam na ne ponk la ci ci ci yoon wi kon juróom yooyu yëpp boo delloo ci mbindum sëriñ bi ak pratique bi da gis ne moo yanu ñoo yanu ñoo taawu xalaatu sëriñ Touba. sëriñ Touba am na yoon wu mu daan jaar ba def taalibe yi ñu nekk ay taalibe maanaam am na méthode d'éducation manhaj tarbawi boo ko doon tënk juróom-benn yëf nga koy tënk. boo delloo ci ay mbindam xool li mu doon defee danga ko ca fekk bi ci njëkk mooy ku mu yar ku ne dalay wutal kilifa xudwa xasana moom la tuddee ab sëriñ wala wasila wax na na muy mel wax ju duñu waxtu wi duñu may ñu ñu kii ko mooy wasila bi ci toppaat mooy dana ko wutal barab bu sell bu mën a dundee mooy bii a saaliha moo tax àll yi mu daan toj ak di sanc ay dëkk di fa wéet ak ñi muy tarbiya loolu daa mënta ñàkk ndax li muy liggéey mën a sotti bi ci toppaat mooy jàngale ku muy yar ku ne dalay jàngal la ca toppaat mooy dana la yar nit ki ci jaamu yàlla di la tàggat ci jaamu yàlla ci nga dundal sa waxtu yépp ci say ci ay farata ak i sunna ak i naafila bi ci toppaat mooy yar ci liggéey yar nit ki ci muy liggéey liggéey boobu bari na lool lu muy jariñ ci biir yarub taalibe la ca toppaat mooy tàggat maanaam not bakkanum nit ki not bakkanu nit ki ba nga xam ne dana dox digganteem ak euh, lépp loo xam ne luy gàllankoor ku jëm ci yàlla la loola la ci ëpp solo mooy ñeenti yëf arkaanu bayti jamil qawmi arbaatun bihaa yu assasu bunyaanul wilayaati sumtun wa juun tawilun baadahu saharun wa uzlatun an shuyuxin bil ishaaraati kon fokk taalib ñun ñëpp ñu mën a ñu mën a euh, jéem a dégg yi yëpp ngir ñu mën koo jottali am na loo xam ne mooy ràññale mbooloom murit mbooloom murit am lu leen ràññale loo xam ne mooy daje ci mbooloom murit ñu xam ne ñii ay taalibe lañu nga xam ne loola gisuñ ko ci menn mbooloo mu dul mbooloom Sëriñ Tuubaa ba ci njëkk mooy mbooloo la ñuy doon moo xam ne dañuy dëddu àdduna maanaam àdduna du leen tax a jóg dañoo wàcc àdduna ci seen ginnaaw seen jubluwaay bépp mooy sàkku ngërëmul yàlla ak ëllëg loolu moo tax fitna yi juddoo ci bëgg àdduna ci xuloo ak ŋaayoo ak xeex yàlla musal na leen ci li kulli man bi yataallaqa najaa min kadari dunia wa fi yawmi najaa kadari dunia mooy nax na li li xew li tax nit ku bëgg àdduna li mu koy jural ci ay xuloo ak ŋaayoo ak bañanteeg iñaananteeg xeex loolu mooy kadari dunia kenn du ko firee yeneen kadar yi yeneen yi moom xéewal la iskadaratuha ka faqrin wa marad wa gayriha wa kulli ma min arraziyaati arad aw il mullimaati aw il balaa'i nicmatu rabbina bila xafaay ba ba bay dee jeex moo taxoon mu ne najjaahumul baaqi min an niiraani dunya wa uxra wa min al xusraani yàlla musal leen ci sawraw àdduna mooy guerre guerre yi ak xulo yi ak ŋaayoo yi nga xam ne bëgg àdduna moo koy waral kon dëddu àdduna sàkk ngërëmul yàlla bokk na ci liy ràññale mbooloo murit bi ci topp mooy dañuy nekk ñoo xam ne euh, dañuy nekk niti jàmm lépp lu ñuy wut ak di ko sàkku ci jàmm ak yiw ci lañ koy sàkku ndax moom loolu la tànnoon wa biya jaddidi sabil bila idan aw alame la ca toppaat mooy dañu nekk mbooloo muy sukkandiku ci seen bopp dañuy sukkandiku seen bopp seenu ñaq la ñuy dundee moom la ñuy doxalee lépp lu ñuy def du ñu yaakaar kenn du ñu wéeru ci kenn ku dul yàlla ak liggéey la ja toppaat mooy dañuy bennoo dañuy boole seen kàddu mu nekk benn di yëkkateendoo di tegandoo la ca toppaat mooy dañuy dégg ndigal di bàyyi tere la ca toppaat mooy euh, kenn ku ci nekk sa moroom ma lay gënal sa bopp lu mooy inkaaru zaat dangay nangoo bu daraja jee jenn da koy nangoo ñàkk jox ko keneen nangoo joxe sa daraja ak nangoo joxe sa alal mooy inkaaru zaat loolu tam lu ñu leen xame la la ca topp nag mooy dynamisme maanaam ñu yëngatu la ñuy doon ñoo xam fu ñu nekk ñu xam ne ña nga fa fu ñu jaar rek jàll bu ñu fa jógee ñoo xam ne fii ay gaay yi nañ fi xam ngeen ne fii ñu nekk ak feneen fu mën ni doon am na ay yëngatu ak i jeexit yoo xam ne taalibe murid ñi ko fi bàyyi loolu ci yar biñ leen yar euh, ci la bokk la ca topp mu nag mooy ab yar ak i teggiin juróom-ñaari yëf la wala juróom-ñett yoo xam ne mooy màndargaal mbooloom mbooloom murit kon lii lépp buñ ko xamee ca na mu gën a yaatoo gën naa mate su boobaa loolu mooy xam nañu kon woote Sëriñ Tuubaa buñ ko xamee nag la ca topp buñ ko xamee xam gu wér te di ko jëfe ca na gën a mate su ñu ne kon yor nañu bataaxel bi buñ xamee njàngaleem Sëriñ Tuubaa dañ ko war a xame jëfe ko nañ ko war a jëfee su boobaa jàpp mën nañoo jàpp ne ñi ngeeg bataaxel bi ñu ngi ko yor ñu ngi ko saytu suñ ko xamut mbaa jëfewuñ ko nag wàcc nañ ko masalu lazina xumilu tawrata summa lam yaxmiluha ka masali ximeer yaxmilu asfara bii sa masalul qawmi lazina kazabu bi ayatillah wallahu la yahdi alqawm alzalimin yahood yi ba yàlla wàccee ci ñoom tawreet te jëfewuñu ko mbaa xamuñu ko yàlla daf ne dafa leen a jàppe ñoo xam ne yanuwuñ ko maanaam nañ ko wàcc téere baa ngeeg ñoom ñu koy bind ak di ko jàng waaye comme jëfewuñ ko mbaa soppi nañ ko xamatuñ ko nañ ko nam doonoon su boobaa day mel ni wàcc nañ bataaxel bi yorootuñ ko kon xam ko ak di ko jëfe loolu mooy yor gi jottali gi nag mooy buñ ko xamee ba di ko jëfe ba noppi nag ñu fexe ba mu tas ci àdduna sépp loolu ci ñaari anam lañ koy defee bu jëkk bi mooy dañuy dañ dañuy nekk ay royukaay maanaam taalibe murid war na fépp fu mu mën a nekk ci àdduna balaa wax kenn dara ñu xam ne moom murid la li Sëriñ Tuubaa di jàngale day feeñ ci pas-pasam feeñ ci ay jëfam feeñ ci ay jikkoom ba ku mu jaxasool nga naw ko bëgg ko kooku mooy nga woote koon ci sa doxin la ca toppaat nag mooy nga woote ci sa làmmiñ mooy li sëñ Tubaa jàngale ñu jottali ko ci ay téere ak mboolem xeetu moyen bu ñu ko mën a jottalee ci moyen yi nga xam ne moo am ci yi ñuy jottalee yépp moo xam téere la moo xam cassette la moo xam film la moo xam beneen moyen bu ñuy mën a jottalee wala ñu koy jàngale wala ñu koy yare bu mën di doon jëfandikoo ko ngir tas woote bi ci àdduna sépp jàpp nañu ne nag kon dundu dundu woote Sëriñ Tuubaa ak tasaare ko loolu mooy liggéeyal sëñ tubaab bi gën a mag ci buñ koy defal Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yàlla na ko yàlla dolli leer te taas ci barkeem neewoon na as gor ku ko masaa teral daana ngéejoo fekke sa bis ba fay la teraanga ja mu ne te taalibe yi li ñuy bari bari kenn bëggul di sa moroom maanaam kenn ñëwul sa moroom ku nekk yaakaar nga ne li sëñ bi doon séddale yaa ci ëppale deuxième personnalité ci yoonu murit gaa yi dañ koy xëccoo ku nekk jàpp na ne bu sëñ bi jàllee sa kër a ca topp loolu mooy kon yow méroo ci li la sëñ bi sedd kon teraanga ji mat na li ci des mooy ñu delloo ko njukkal mu ne nag sëñ Tuubaa fañ koy delloo njukkal bisam mooy bis penc bis penc bis bu ñu demee ba yonent bi sallallahu taxaw xeet yépp taxaw mu wax ne yéen saxaaba yi maag yéen àndoon yéen yonent yi ma jiitoon alxuraan nettali na ma seen mbir ñi ñëwoon sama ginnaaw nag di ay boroomi jamono ñoo ñu laa bëgg ñu ñëw nat seen àndaar mu ne bu boobaa ku matal sa àndaar ñu yëkkati ko ba ñëpp seen ko ñu tàgg ko kañ ko ku matalut ñu tànc ko ba dem sawar a gënal ko tànc yooyee wala yas mu ne nag su keroogee képp koo xam ne tax nga Serigne Touba am loolu mu doon bëgg mooy daa bëgg su boobaa bu ñu tuddee turam balaa jóg moom ay taalibeem ñooy jóg di def lu mel ni la boroom jamono yu daan def bañ ne ana ki nga xam bi ñu tuddee turam ba léegi moom jógagut ay gaayam rek ñooy jóg di def ay jaloore su boobaa nee na yonent bi sallallahu mooy jóg ni daan ni Sëriñ Tuubaa daan taggee yonent bi ci àdduna su keroog nee na yonent bi mooy jóg di tagg Sëriñ Tuubaa ci kanam pénc ma di xamal gaa yi kii mooy kan Sëriñ Abdou Lahad Mbàkke mu ne képp koo xam ne tax nga Sëriñ Tuubaa am loole yaay ko ko fare fenn waaye koo xam ne taxut mu taxoo mu am ko moo la fare fenn waaye féetewoo ko fenn looloo lay tax mu am mooy nit ki fexe ba doon aw fepp wu ñuy nattaale ci àndaar ji fekk nekk aw fepp wu ñuy nat ba noppi mën a indiwaat yeneen i fepp ah, ki ñuy nat nag mooy nit ku jub kon képp koo xam ne jub nga mën nañu wax nga danañ la dugal ci àndaar ja ñuy natt xam ngeen ne gerte buñ ko bayee wala tool la ñuy natt mooy bu dee gerte gerte ga la ñuy natt waaye mbogo mbogo ma kenn nataale ko bu dee dugub pepp ma la ñuy natt waaye xetax ba kenn du ko nataale kon kuy tuddoo sëriñ bi te jubuloo baaxuloo boo ëllëgee bés la limaali ci mbooloo ma tax sëriñ Tuubaa di wax kon ku bokk ci mbooloo ma muy puukare wa ëllëg kooka moom bokk na ci àndaar ja waaye bu ca bokkee bu mu ca yem na fexe ba maanaam moom itam fexe ba àndaar ja gën a buur mooy mu xëcc ay moroomam te loolu mooy mu yaatal woote bi ba àddina yépp bokk ci waxtu yi dab nañu xam naa ne sax wees na bu yàgg-yàgg waaye ñu ngi tënk fii kàddu gi ñu jàpp na xëy na lii ay grande ligne la yoo xam benn bu ci nekk laaj na waxtaanu mat sëkk euh, waaye ñu xam ne bu ñu bëggee yanu leer woote sëñ mooy dañuy dégg dañuy xam ni sëriñ bi déggee lislaam xam ko ba noppi jëfe ko ba noppi nag jottali ko wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu